mu di Ousmane Sonko daal di wax ni lu weesu euh, Yewwi ak Wallu ñi ci des ñëpp ci solde Macky lañ ne nan ngay jàngatee déclaration bi. Euh, li ñuy njëkk wax rek mooy euh, ñun on na se sent pas du tout concerné parce que loolu amut mm-hmm. en ce qui nous concerne suñu bopp rek lañ mën a waxal. Mm-hmm. te njort boobu aussi dañuy am ci ci ñeneen ñi nga xamante ni yëpp jàpp nañ ne c'est beneen citoyen yu jóg ànd ak ay góor ak ay jigéen mm-hmm. di sonn bu dégg bëccëg suba ngoon pour taxawu seen réew ñooñu dañu mérite ak considération euh, ñu moytu aussi xam ne politique n'autorise pas mm-hmm. politique nañu moytu tuumaalante ak waxalante loo xamante ni lu bon la mm-hmm. te képp koo xamante ni dagg nga mbubb ak koo mën a doon solo ko sa bopp jekkul ci yow bu ko solal sa morom

di am jafe-jafe carburant di am jafe-jafe oto yenn saa yi ñu luye ñu oto ba ci yàgg sax borom jël ko parce que liñ koy yoreel bëri na donc kooku nga ñëw naan ka dañ la yooyu pour man c'est manquer du respect à se honnêtes citoyens et c'est inadmissible moi je n'ai qu'un seul interlocuteur c'est le peuple sénégalais mm-hmm, mm-hmm. je ne parle qu'au peuple sénégalais ma am aussi peuple sénégalais bi rek la fa jox donc nekkuma ci yooyu yooyu yooyu ko xam nañ ci dem mm-hmm. affaire politicien yooyu ñi ko xam ñoom dem nañ waxalante boobu waxante lu bon boog yooyu nañ ci dem c'est pas mon truc ñun nekkuñu ci loolu on respecte ce peuple là keroog dama dem seeti euh, Serigne Mounirou Ndiéguène fii ci Thiès mu ne ma lépp loo wax ci télé bi maa ngi koy gis maa ngi koy dégg maa ngi koy seetaan man nag damay sóor ñooñu damaa bëgg lépp lu ma wax suñ leen ko yóbbulee du am kersa ci seen kanam. waaw ñoom ñoom waaw ku nekk ku nekk ak la nga nekk rek ak sa biir loolu du suñu biir ñun askan bi rek moo ñor askan bi rek la ñuy waxal. ngi zone Thiès lan ngay promettre waa Thiès surtout que dëkk la boo xamante ne. militaire li ma li ma leen di promettre mooy taxawu leen. sama kéem kattan. Mhm. waaw ndax ñi ñu faloon jëriñuñ leen lu bëri. Mhm. Thiès dafa souffrir ci politique politicienne ay at a ngi nii ay politique souffrir na bay bëgg a mhm. jot na loolu soppeeku jot na ñu jël askan bi def leen priorité. Mhm. waaw te boobu ba tey dañ leen négligé. Mhm. te loolu war naa soppeeku. loolu rek la ñu bëgg loolu rek la ñuy wax. Pape ñu ngi lay jaajëfal te di la ñaanal yoonu jàmm nga àggale ak sa sago. maa ngi leen di gërëm bu baax ci taxawaay bi ngeen am aussi pour wàllu yëpp wàllu it euh, mérito na jógee fii nga xamante ni. politiciens yi sonal nañ ko. te histoire ak géographie yooyu permettre na ay doomu wàllu ñu mën a gis seen bopp ñu mën a sant yàlla. macha allah macha allah effectivement. jërëjëf Pape jërëjëf.